équipe nationale bu Sénégal waay yéen a ko yor xale yi rek a bienvenue mesdames et messieurs, chers amis internautes de www.senclic.com qui reçoit monsieur Babacar Diouf monsieur Babacar Diouf l'un des membres de groupe deuxième gaynde mu nekk koo xamante ne nii bokkoon na ci ñi nga xamante ne demoon nañ ànd ak suñu lion yi foofee ci Russe pour ànd ak ñoom supporter maa ngi koy nuyu ñu sax seeni sekk waxtaan ak moom monsieur Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay maa lay fay. Babacar yow euh, bokkoon nga ci ñi nga xamante ne ni àndoon nañ ak Lions yi foofee ca Russe donc seen ànd googu naka la demee mais laata loolu yaa ngi douzième gaynde naka nga def ba nekk douzième gaynde waaw maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñuy seetaan di bëggee ñëpp euh, di nuyu ñëpp gërëm di nuyu sama sama yaay di leen di ñaanal ñu yàgg fi te en fait douzième gaynde nag dafa nekk loo xam ne dafa mës a nekk sama sama xol quoi. sama réew la xam nga parce que douzième Galle boo ko dégg maanaam ku bëgg réewam la parce que loo bëggul rek doo ci def quoi ci yàgg dama yàgg bëgg a supporter benn affaire muy muy football di basket di leneen lépp loo xam ne daal ci nation bi la bokk rek dama ko yàgg a bëgg maa ngi dugg douzième Galle depuis 2002 ah waa ci laa nekk xam nga dugg ak xam nga di dugg maanaam passion moom ma ci dugal waaw passion bi moo ñëwee nag bokk ci intégré ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def Sénégal bi. yàlla def ma yàgg ci it gis lu ci lu gis gis lu lu ne dégg ci lu ne nag di ko muñ xamoon parce que mbir moom boo ci bëggee yàgg moom il faut nga muñ gis lu ne dégg lu ne mais daf ma ko jaraloo nag moo tax xam nga ma nekkoo ci quoi. bokk deuxième gaynde bokk ci équipe bi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw ci devant ci tribune bi def Sénégal yow ban nga ci S bi wala N wala E wala G. man boo ma laajoo daf may damay sawar wax ci di nuyu samay sama gaayoo sax ku mel ni Teuz koy wax Tafa. Papin Babacar euh, Grayo Babacar Cambren Abdou Aziz euh, Omar Diouf waaw ak man mi waaw di leen di nuyu ak Omar Gomis quoi waa man maa yor lettre G bi quoi. lettre G yaa bi quoi. ok pourquoi nga choisir G wala dañ lay tànn rek ne la teel G kii jël S wala. xam dafa nekk loo xam ne xëy na xam nga euh, des fois dafay am ay relève parce que ni gis nii man mun naa dem ba ay jamono amatuma duma amati jot kenn ni ñëw léegi nag bu pour ci niveau lettre yi des fois. dañuy xool équilibre taille bi parce que dañuy bëgg mu nekk benn taille boo xam ne day am équilibre parce que bëgguñu bi njool bi gàtt bi xam ma dañuy bëgg bu commencé sa mooy obligé nekk sa sa lettre quoi xam loolu noonu la fa demee quoi. donc Babacar li ma la bëgg laaj mooy euh, deuxième gaynde cest à boo fay dugg inscription la. wala da ngay ñëw rek donc bokk douzième gaynde wala dama bëgg a dokk douzième gaynde man su ma bëggoon dokk douzième gaynde nan laay def damay ñëw rek ne dama bokk douzième gaynde nuyu sama sunu président Issa Laye Diop en fait douzième gaynde comme ni ko Issa Laye di waxee rek ñëpp ci xej mais xaju ci kenn parce que yëfu nation ñëpp ko bokk amul amul mas Demba amul mas Demba quoi pour bokk ci nag da ngay intégré da ngay ñëw rek xam nga boo ñëwee intégré ñëw euh, dana jël seen numéro da am na message boo xam ne dañu la koy lancé bu ñu amee programme wala réunion dañu la koy wax nga ñëw soxlawuñu défaillance boo xam ne défaillance boo xam ne koo xam ne maanaam dafay teel parce que programme dañuy bëgg nga ciy teew boo ci teew si fi ñu lay ñu lay ñu lay xàmmee di la ràññee. activité yëpp quoi. waaw activité parce que nag dem yëpp munoo doo mën a dem lépp nag mais del del il faut nga sabablu quoi pour mun di ñëw parce que. kii nee nañu olof ñaa mu ne ku la ci naaj bi xam nga nekk waaw te xam mu nit ki mun nekk ci naaj bi nekk ci naaj ba benn jour benn après ñëw nga ñëw taxaw ne waa dama bëgg a dem wala nii xam nga loolu te xam nga ça ne se fait pas mais loolu dafa demee quoi. ci génn bi ñu wax ci ñu wax ci génn bi deuxième gaynde ñu ci bari donc yàgg nañu dégg ay écho xam nga ñu naan noo dafa am ay ségrégation ci yóbbu bi dem nañ sax ñu naan noo dañu exporter ay nit di leen yóbbu bu ngeen fayee ñu indi la ak yaayo yow dem nga Russe est-ce que noonu la demee bi ngay dem Russe da nga fay ay millions pour dem Russe wala naka la demee pour dem Russe. waaw astafurlah ci wax jooju sax non loolu amul douzième loolu mënut a mënut a que man dem bi waa état état bi moo ñu yóbbu xam te maanaam li ma la ko waxee rek gis nga. mais amul sax ay laaj xaalis yow kaay ak. loolu ma kenn laaju la dara. vraiment que parce que comme ni ko Issa waxee chaque jour nee na ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay tooyee xaw ma ni ngay tëmbee ci géej bi ngay tooyee. waaw boo ci tooyee tooy boo ci tooyee rip rek waaw boo ci taxee rip moom mooy yow dangay bokk nga ci ñi de parce que ay sélection la maanaam sélection te deuxième gars yi yemul dakaar Euh, am na ci région 14 régions yëpp la léegi nag euh, pour ñu bu ñuy sélectionné dañuy sélectionné ñi nga xam ci régions yi membres yi maanaam d région bu nekk dafay am représentant bu fa nekk nombre de personnes bi ñuy jox dañuy sélectionné régions yi ñu xool ki nga xam ne moo fa nekk responsable mu tànn fa ñi muy indaale bu dee ñaar lañ fay jël ci région yi wala ñett su dekkee kenn lañ fay jël ki fa nekk ki nga xam moo fi représentant bu ko neexee mu mu yebal nit mu ñëw noonu la ñuy tànnee ñu xool côté au niveau de Dakar ci xool tànn tëggkat yi tëggkat yi euh, maanaam euh, côté culturel dafa am ko mooy mooy président bi mooy tànn tëggkat yi foofu. ci wàllu ci wàllu culturel quoi. moom Issa bu ku ci nekk dafa am responsable booy gérer wàllu culture bi dafa am ku fa nekk mooy mooy tànn ñi nga am ñooy tëgg wàllu penture bi ñu ngi xam ñoo Sénégal bi dafa am ku fa ku ñu fay jiital muy tëz. maanaam ñi nga xam dañuy teew di ñëw di sacrifice seen bopp ñooñu dañu leen di dañuy dafa am ay tutélaire ci cette dañ leen di tànn ñu dem ci côté ambiance bi ñi nga am dañuy teew chaque jour. dañ leen leen di tànn loolu la ñuy tànn quoi mais du question dañuy xool yaa ma neex mais yaa ma présence si présence bi la ñuy la ñuy la ñuy la moom daal ku ci gën a présent ci douzième yow la ñuy tànn am nga mille sens pour dem dem ci réunion yi ci activité yëpp yoo xamante ne douzième gaynde mu ngi koy mëne avant pendant et après. donc léegi kërëm mënuñ ko boolee ku nekk këram xam nga kooku mun da nekk sa kër ba pare programme ñu ne dañuy voyage rek nga yegg si waaw jox sa passeport xam nga dinañ jox dina jël sa passeport boo ñëwee nag nekk te activités yi bëriwul ci ñëw boo ñëwee dañu jël sa passeport mais boo amee xam ne yow mën nga cee dugg tey bu fekkee 50 la ñu bugg ñëw jox 20 dañuy xool ñi nga xam ne ñoom ñooy teew comme waxee yow nii xam nga ma demee. dëgg la dëgg la mais dañu doonoon benn certain temps deuxième gaynde bi fi Abdoulaye di nekk il paraît que ci la gënoon kaañu ci la gënoon ëpp xaalis parce que jamono yooyu ñu ngi gisoon di demoon sax booy dugg ci affaire de politique ak yu demee noonu donc tey bi fa yaa ngi woon depuis douzième gaynde depuis combien de temps yaa ngi ci woon début 2002 nga ci dugg donc 2002 ba 2018 fekkee nga fi jamonoy Ablaye Wade ci 12e gaynde fekkee nga régime bi fi nekk ci 12e gaynde ñaari régime yooyu yan ngeen gën a sentir seen bopp parce que gars yi nee nañ il paraît que 12e gaynde day politique léegi ci mbooloo mi lay jaare di politique. non xam nga ñun euh, bu loolu waxuñu Sénégal xam nga Sénégal moom noonu la ñooy ñooy doxalee noonu boo duggee ci lii ñii ñii dañ ciy ànd ñii duñ ci ànd xam nga moo tax da ngay def a dem. en fait douzième Gaindé moo nekk loo xam ne bu ñu koy def jamono yooyu ñu xamuñu nañ supporté yàlla def ñu ànd benn njit boo xam ne vraiment ku sawar la ku nangu ku déggulu xam nga yàlla def ñuy dem ci jamono jamono jamono Macky lañ gën a am organisation ko jamono lay wat parce que jamono Ablaye Wade Ablaye Wade euh, bien vrai def nañu jox nañu fi avion jox nañu fi xaar ñu dem ñëwaat xam loolu xam nga nguur gu ne ak ak ak ni ngay doxalee waaw ngu état bu ne organisation ci jamono Macky Sall la ëppee. Macky Sall ci lañu amee chance dem mondial parce que jamono Ablaye Wade xamoon xëy na mooy li. non yow ci Macky Sall nga amee chance dem mondial. mais mais am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi dem dem mondial ci jamonoy Ablaye Wade. boo xoolee Sénégal ñaar yow la mos a dem mondial ci jamono Ablaye Wade manque manque d'organisation moo tax ñu euh, waa du ñu bëri demuñu woon. léegi ñu ñu wax ci ci ci bi ngeen fi offoon quelque temps dégguñ douzième gaynde kenn xamul douzième gisuñ leen xam nga lan moo waral off bi après léegi ñu doon dégg Casa Casa. c'est quoi le problème ñun suñu off de ñun mosuñu off. xëy na kay sénégalais yi ñoo bëgg. comme ni lu bees li ko waxee noonu dañuy jël à la place de un teg fa place de deuxième. teg fa deuxième te loolu. dañuy gis un bi jël peene deuxième bi moo gaaw. mbiru Sénégal la rek. Sénégalais ñoo ñoo mel noonu. kon douzième gaynde daal mooy un. waaw. mooy supporter number one. waaw boo doon boo doon jëfandikoo ci loi de nation drapeau bi dañ lay dañ lay soutenir. muy athlète bi di basket bi di handball bi di patente lu mu. mais tamit wàllu wàllu loolu mën naa ko confirmer parce que mondial bi gis nañu seen taxawaay yéen douzième gaynde ci équipe nationale waaye aussi tamit ci suñu drapeau ci tamit ci réew mi parce que yéen à travers yéen ci seen i ambiance ak seen i déguisement et tout jaay ngeen Sénégal. partout dans le monde ci télévision yi fépp foo seetaan ñu ngi wax douzième gaynde seen style xam nga donc ñu leen ciy remercier loolu lu rafet la di remercier seen njiit bi donc extraordinaire mention spéciale à douzième gaynde donc ñu wax léegi ci euh, ci ci ambiance bi bi ngeen jógee fii dem russe xam nga est-ce que est-ce que toppatoo woon nañ leen bu baax logement yi ak yu demee noonu xam nga donc consommation bi naka la demee alors vraiment foofu moom euh, vraiment ça s'est ça s'est très bien parce que boo xoolee euh, jox nañu avion direct avion boo xam ne vol direct la te xam nga mënoon nañ jël escale di sonn mais dañoo jëlal avion vol direct retour avion vol direct amuñu benn souci booy dem stade lay jox oto booy dem euh, boo yegsee ñu jox la te puis boo même même même train bi ñu dugg sax dañuy jox agent de poste maanaam ñun daal problème mu ñu amoon xanaa xanaa ñàkk qualifié bi. waaw mais li nga xam ne mooy mooy war waru supporter def nañ ko li nga xam ne moom la état bi di waxoon nañu defal nañu ko vraiment xëy na kay dañoo dañoo mën a wax ne xëy na li maanaam nombre de personnes bi ñu bëggoon amuñu ko parce que xëy na suñu réew mi moo demee noonu non yéen da ngeen bëggoon akimoo yëpp te Casa mu ngi fii da lim dañoo lim Casa nombre après complété ñaari nombre yi. ci douzième gaynde la bokk rek xëy na dafa nekk ah, la. douzième gaynde la nga kon ñun ñëpp ci douzième gaynde lañ bokk parce que ñun ñëpp ay supporteru Sénégal kon ñun ñëpp ay douzième gaynde lañ bokk. dafay am ñi nga xam dañ dañ xër ak ñi nga xam ne du leen jaral yenn yi quoi parce que boo xoolee Sénégal football ñëpp ñëpp ci ñëppay ñëppay mais nit ñi ñu ngi doon wax ne presse bi donc sénégalais ñu ngi sonn ñi amuñu fu ñu fanaan donc problème consommation dañuy am ñii dem nañ sax ba ñu dañuy am ay biir yu daw foofu parce que lekk bi tàmmuñu ko foofu bi ñu jógee ci restaurant bi lekk ñuy lekk foofu noonu ñu ngi sonn di am ay biir yu daw ak yooyu noonu di feebar. Ah, non amu fa amu franchement amu fa loolu loolu gars yi leen neex rek loolu amu fa. non xam nga Sénégal ñoom dañuy dañuy bu ñu déggee tërëguñu damm la quoi même wax nañu fa dañ fi xeex dañ fa ci avion bi te loolu ça ne se fait loolu maa ngi ciy jëm ci kanam tuuti kon loolu amul. xeexu leen ci avion. xeexuñu avion xulóowuñu. non bi ngeen di ñëw xeex ngeen am na ay bagaar yu amoon ci avion bi. loolu loolu loolu benn benn. bu rafetal am na ay bagaar yu amoon aussi tamit ci rafetal. waaw ñu nekkoon foofu ñoo doon woote di expliquer en direct ci bagaar bi. xam nga ñu Sénégal xam nga li ñuy def gis nga nekk baadoolo daal Sénégal bi yaay nekk fi moo métti xam nga moo tax moom met parce que avion bi benn benn benn benn responsable bu nekk euh, présidence moo fa nekkoon benn femme la sax bu am yaram moo fa doon wérante ak place mu ne fii laay toog fii laay toog fii du fi toog yaa ngi dégg loolu moo doxoon wax ci wax ji ay wax yu ndaw la woon mais xam nga journaliste yi fa nekkoon ku ci nekk da ngay bëgg a bind loo xam ne da ngay bëgg sa article jar. Ah, man de liir naa fi ñu ne douzième gaynde sport kii supporters yi ci seen biir ñoo doon xeex ci wàllu place. ma liiraat fii ne noo Casa Sport douzième gaynde moo dugaat ci beneen site liiraat ñu ne noo gouvernement bi ñoo doon xeex ci biir jëkkalante place. no dañuy bëgg dañuy bëgg seen site yi jaar wala buzz lañ mais yàlla xam na ne yàlla moom a tiim ah douzième gaynde ak Casa jotewuñu dara dara ñoo bokkoon fi ñuy lekk. léegi déggoo li ma la wax sànq yow wax nga lépp douzième gaynde ci Sénégal ci ci ci Casa Sport ci douzième gaynde la bokk ñun ñëpp Sénégal yëpp ay supporters lañ ci douzième gaynde lañ bokk donc naka ngay nooy defee bi sa résumé. ci équipe nationale ak euh, sa par rapport sa gis-gis ak Aliou Cissé. donc comme yaa ngi fa woon teew gis ambiance bi monsieur le président son excellence Macky Sall demoon na fa ma Marème fay aussi yëpp. donc xoolal ñaax boobu noonu yëpp donc ak fi ñu toll ak fi ñu déparé fi ñu toll yow ban résumé nga ñu ciy defal loolu. waaw li ma ciy wax daal mooy di gërëm euh, euh, président bi ak monsieur le ministre des sports parce que ñoom vraiment def nañu lu rëy xam nga def nañ li ñu mën. ah def ñu jox jox dugal nañu ci ko ba ci bon condition xam nga mënoon na leen fi bañ a fekk ah, man dem leen ci remercier bu baax a baax parce que bëggul woon bëgguñu woon ñu xi bëgguñu woon ñu mar ministre des sports ñëw na xam nga euh, Aliou Cissé dañuy wàllu Aliou Cissé nag moom dañ koy encourager parce que soo xoolee def na fi loo xam ne benn Sénégalais mosu ko fi def xam nga équipe bi am na fu mu tolloon bien vrai nit mënut a am nit boo doomu aadama boo gis am na am na am na defoo xëy na défaut mooy xëy na xëy na ñeneen du déglu nit ñi mais boo xoolee on a bien fait un bon parcours. waaw xam nga xëy na yàlla mën na fa lay yem. mais vraiment dañ ko encouragé mayaat ko sens xam di ko parce que ñun suñu wargal mooy. non Aliou Cissé guerrier la quoi qu'on puisse dire Aliou Cissé la parce que boo xoolee sénégalais la de un et puis ndaanaan la bëgg na réew xam nga donc boo xoolee fi mu dooree ci olympique yi ak ni mu ñëwee ba yegg si donc man je vois que franchement guerrier la jàmbaar la ci côté boobu amul dara lu ñu koy blâmer aussi tamit boo xam ne li ma ciy lancé mooy. comme ni mu ko waxee woon ci conférence de presse am bi passé na ko gars yi bàyyi donc mu liggéey donc gars yi koy ñaax di sànni tout le temps benn équipe mille entraîneurs aussi yow loolu naka nga gisee loolu Sénégal. non Sénégal moom loolu fii moom booy booy mu làmb sax bu am ñëpp ay ay entraîneur la ñuy doon quoi. yaa ngi gën xam mais suñu habitude la quoi suñu habitude la. suñu habitude la mais yow leeree leeree nga leeree nga fële de. <laughs> <laughs> te da ngaa ñuul ko xam naa la Babacar. bi ngay jógee fii di dem russe. Ah. sa préparation russe gis naa la bi nga demee ba ñëwaat gis naa la. waaw waaw dégg naa bi nga demee moom sangu gi moom. <laughs> non en fait en loolu non leeraay bi. wala climat bi bàyyeeku la ba léegi. bàyyi na mu bi fii moo neex rek. ni nga xonkee nii. non xonk moom yóbbaale woo xonkaay de. <laughs> yàgg ma foofu li mu tax ma ma leer yow tamit. kon de boo ko yàggoon da ngay xonk cuut mel ni tubaab. <laughs> mel ni benn tubaab quoi. waaw neex na quoi xam nga. Mm. dem découvrir yenn dëkk yi xam nga. ñibbi si waat loolu vraiment da lay tuuti xam-xam quoi. lan lan lan nga fa gis par rapport xam nga lu fa am loo xam ne amul fii lu waroon am fii ci pays bi. lu ma fa jàngat mooy euh, discipline bi ci côté réew mi quoi gis naa ne foofu. liggéey wàcc lañ gën a respecté que que di wax ci pour télé yi comme politique comme Sénégal parce que man. Sénégal toog teg caa wax. lañ gën a bi ma ñëwee fii bi ma ñibbisee li ma gën a métti mooy bi ma ñëwee télé yi de benn débat rek la ñuy wax politique Karim Wade euh, Abdoulaye Wade euh, Khalifa Sall fi ma nekkoon dèjà benn ñoom seen poubelle yi dañ ko respecté même tux su gërëm sax duñ tux si biir nit ñi buñ. Moussa loi boobu am na fii ku fi tux ci biir nit. ñu jàpp la mais mais fii gars yi ko waaw parce que ñëpp ay xarit lañ moo tax. man loolu jàng naa ci loo xam ne man dèjà sax man des fois dama yor sama musuwaar sax bu ko sànni sax ma xalaat mu mel ni fa laa nekk que ba pare gis naa ne bu stop tubaab dañ euh, maanaam boo waree jéggi tali bi euh, oto du de oto du déplacé wu yéen da ngeen di dem xam nga li ma la mais fii oto mënu laa may nga nga nga jéggi fii. maanaam am na am tere ñuy def ci boo xam ne yow yaa am droit. passage piéton yi mais fii fii fii respecté wuñ ko. mais foofu da ngay ma dama dama wax ba ba hésité pour man maa ngi Sénégal de mais waaye dafa taxaw ne ma jàllal ma ne ay lii de bu doon fële taxi maa ne car bi lay njëkkat ci bay <laughs> ok merci Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la gërëm euh, chers amis internautes ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu nekkoon Babacar moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ni demoon na Russe ànd ak suñu Lions yi dem si porte ji donc ñu sekkoon ak moom waxtaan bi ñu ngi lay félicité di la jaajëfal bu baax donc ci opportunité bi ñu may xam naa jafewul ak sa liggéey bi gérer Walfadjri yombul mais xam nga d'après tout ça donc permettre na ko ñu ngi lay remercier di la jaajëfal bu baax merci beaucoup kontaan ci teewaay bi ngeen teew amoon